tout euh, Grand Yoff TV daline leen ñu wax euh, ci lu soxal ab xibar bo xamné agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie euh, dal dinañu ko fësal ñom nak ci seen bulletin bi nga xamné ne nañ ko niki ki fukki fan ak ñaar ci wéro sulet atum 2024 ñu daal di xam ay taw yo xamné dina andak ak ay deun yu dal dina wacc ci réewum Sénégal ci période. ëtt euh, bu 23 euh, au 25 juillet. mi ngi leen di yégal ay taw yoo xam ni taw yu am doole la ñu narkaa nemmeeku incha allah bu ëllëg. Euh, jotee talaata ci digg bëccëg dem ba incha allah boo di alxamis ci guddi te taw yooyu noonu nag incha allah dinañu laal réew mi yëpp dinañu gën a tare ci yenn goxu réew mi rawatina ca bët saalum muy diggante Kédougou jàpp Tamba Kolda ba boo di Ziguinchor ba ca Cap Skirring waaye tamit dinañu yéeg ba Kaffrine Kaolack Fatick ak Diourbel mais même ba ci boori Ndakaaru Thiès ak Mbour foofee yaakaar nañu fa taw yoo xam ne dinañu am doole lool ba am fa yaakaar ni ndox mi tamit incha allah mën na faa bare donc mbokk yi ñu ngi di ñaan nag ngeen bàyyi xel xibaar gii nii ngir mën a mucc ci gàllankoor yoo xam ni taw yi mën nañ koo jur.